السبت واكس الصمت منين دي زيار منين دي بل عقد من بلق منين يلمي يجدل يلمي يلبو يجدل يلا بنك في كنت بلج يلا كفكاي عدي بري بري بري بري, بري. أبوك بأبوه جنبك بغضب قال من يتغنى قلبك جاي محمد صلى الله عليه وسلم نور جاي يقول نور نور نور بسنت يالا كان بباخ باخ باخ باخ من ما يفكر أبني بس بي وقتي تعود في سن كلام

bu ñu sayoon dañuy dañuy zikarandoo ñu ñëpp xaar imaam incha allah feex dix minutes dina egg see incha allah mu ngi ci yoon euh, su ko defee ñu zikarandoo ndax bésu feet la euh, loolu moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ughnuhum ani suwal na ngeen fexe génn seen zakatul fitri bu ngeen laa jullisee ndax ñaka yeyoo mën a am xel mu dal kon nag sant yàlla defe naa ne ñëpp def nañ li ni mel ah. fet gi nag yonent bi saa sam daf si daan génne xale yu ndaw yi génne si soxna yi xam nga jigéen moom dem jàkka du farata ci moom waaye waxoon na ne laa tamnau ima allahi masajid allah bu leen tere jaamu yàlla yu jigéen yi ñuy dem si jàkka yi kon loolu moo tax jigéen ñi am nañ ci taxawaay eh, ndax booy laaj ñu ñoo ci man wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax ndaw ñi si ñooy relève bi daana génne même jigéen ñi nga xamante ne setuñu woon sax daana leen génne ñu ñëw waaye dañ daan nekk ci ginnaaw dañ daan nekk ci ginnaaw nit ñi kon importance su bésu fête la wane tamit mbégte lislaam taar taaru lislaam ci lay zikr loolu moo tax bi fête bi jeexee li ngay njëkk a def rek mooy julli sa borom ñaar ràkk mooy ñaar rakk iidi bu dee ci tabaski noonu la bu dee ci euh, korite noonu la kon loolu mooy wane def naa li ma waroon sama diggante sama borom muy woor naa ba noppi léegi nag sama borom daal maa ngi nii jooxel naa la defal naa la ñaar rakk sukran lillahi ngir santale ko borom bi subhanahu wa taala kon ñaar rakk yooyu le amul li xam juróom ñaari kàbbar la boo ci yimaale kàbbaru armal bu ñaareel bi juróom benni kàbbar boo ci limaale kàbbaru jóg bi kon juróom benni kàbbar ginnaaw kàbbaru armal juróomi kàbbar boo ci limaale kàbbaru jóg bi mooy kàbbar yi su ko defee bu ñu noppee ci la ñuy door a def xutba ñu ñaan mbooloo mi it ah, comme it la moo tax it ñu retardé heure bu def ko 10 heures pour nit ñi mën a génne seen zakatul fitri waaye tey pour kenn bañ mën a tardé su ko defee ñëpp ñëwandoo à su ko defee bu ñu noppee ñu teewlu xarawlu ngir mën a am yóbbal bu ñuy dolla ko ci xutba bi su ko defee ñu teewlu bu baax ndax amul beneen liggéey bu fay dox ci kër gi ndax ziyaarante la te wax dëgg yàlla bërëb bi ziyaarante bu ci dàq defe naa ne néegu yàlla moom euh, dafay dafay nekk ci kanam kon nag su ko defee di jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla yàlla nu yàlla defal tawfiix di ñaan yàlla muy borom sutura yàlla mu yàlla defal sutura waaye defal bennoo ci réew mi defal bennoo ci réew mi defal bennoo ci réew mi waaye defal ñu jàmm it defal ñu jàmm ndax jàmm dañu koy wax dañu koy dox su ko defee loola mooy ne jàmmal naa sama bopp jàmmal naa it ñi ma seqal mbir mi kon su ko defee eh, du ñu def dara du ñu bàyyi rek askar yi ku man di répété ci ginnaawam su ko defee le temps que ma di ñëw ndax bésu zikkar la tooyal xol dello yàlla njukkal subhanahu wa taala ndax dañu génn ci jaamu yàlla bu reuy tay ñu bëss sant yàlla bu ñu fi noppé nak ba génn fi nak su ko defé dem ziarante ci kër yi ndokelante ila axiri kon nak yàlla ñu yàlla defal tawfiq yàlla ñu yàlla defal sutura bu baaxa baax allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلا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

السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم نفسي بتقوى الله العظيم واتباع سنة نبيه المصطفى الكريم وبعد فإنه قد ودعنا شهر رمضان موسم الصيام والقيام موسم القرآن وإطعام الطعام موسما كانت مساجدنا فيه معمورة قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما جعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين قال في حق قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ومن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إخوتي في الله أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على نعمائه والشكر لله على إفضاله والصلاة والسلام على أفضل خلقه وأكرم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين عباد الله اليوم يوم الفرح والسرور والبشر والحبور والتسامح وإفشاء السلام الذي هو شعار الإسلام فصلوا أرحامكم وزوروا جيرانكم ووسعوا على عيالكم وأخرجوا زكاة فقركم قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعط من حرمك وعاف عن من ظلمك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فيها صدقة من الصدقات وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عنا الخطيئة والآثام بجاه خير الأنام اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد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 ak déwén yu bëree bëree bëree bëri suñu mboolem jaamu yàlla ñu bari maa bu néew yàlla na ko yàlla nangul suñu mboolem fakastal maa mu néew yàlla na ko yàlla jéggal gannaaw loolu ñu ngi leen di dénk di ci jiital suñu bopp ci ragal yàlla ak topp sunna yendu yàlla muhammadin te nañu xam ne wéeru koor bi tàggoo na tàggoo wéeru bi nag. ما شاء الله أما نيانا بروي بشنك نوير بي دي جيخي نولا سيدل وسمي بروي دي جيخي كون من يبين باي باي باي سمي خل سمي بس مجي تكا يسوف نو أم نوخ لباخ دوخ لباخ دف لباخ إلا كي يوم القيامة باخ يلا سبحانه وتعالى تيوني فوه تيوالا نكو يلا بوالدفل نوخ ويري دوخ ملو مومو مومو بي مرسل ديس كور مجيش marchandise naafila mu ngi si marchandise jàng alquran karim mu ngi si marchandise leel miskin mu ngi si marchandise bi nga xam ne mooy feesal jàkk yi ba mu fees ci mboolee waxtu yi fajar tisbaar takkusaan timis ak géeye ak naafila yi marchandise yooyu yëpp nag yàlla dafa ko indi ci biir wéeru koor pour ñu jënd suñu jëndee mu fay ñu fii ci àdduna mooy ñu sut mu suturaal ëllëg yawmal qiyaama bi suñu daje ak moom mu fay ñu ko foofu ci biir loolu nag yàlla nee na ci alquran fa man shahida minkum shahra falyasum képp ki nga xam ne gis nga wóor wi na nga woor naka noonu tamit soo gisee wóor wi na nga dog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii aaya googu ci xadisam bu tëdd bi mu ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ان هم فعدوا ثلاثين يوما في نك ناري كل البو في نك كل البنا خمي نانا جسنا إذا جم يوم جس إذا نعم عندك مام ما يسوم ده يأتي كل البنا خمي يوم نانا جسنا إذا أبسط الميل إذا خار بنا جس الزبط ما ي فإن هم فإن هم فعدوا ثلاثة ثلاثين يوما فلك من يوم الحمد لله ñu woor démb ñu ngi ci sawaab ñu woor tey ñu julli tey ñu ngi ci sawaab ñu julli démb ñu ngi ci sawaab julli tey ñu ngi ci sawaab ndax ñoom ñëpp ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa soo gisee nga woor bu aftaru li ru'yatihi soo gisee nga dog wala nga gis koo wóolu mu ne gis na nga woor wala nga gis koo mu ne gis na nga dog بوبو سي واخو يانتبي صلى الله عليه وسلم تك سا فكه نك غيسو غيسو كي نيو خامني مام نغال تك تي لو خام مل نا كوميسيون بي كوميسيون بي نانا غيسو سيت نانا تي بير دك بي ييب غيسو يو مي نا خامني يا لي سيكوندي بو تي كوميسيون بي يو تاميت فان غم عليكم سا فكه بنا ام لا كي راي بيش لك فعود يوم نغن كونت فان وير فان موي سوني kon nag ñii julli démb ñu ngi ci seen dëgg mais ñun tamit ñi nga xam ne dañoo julli tey ñun tamit ñu ngi suñu dëgg ndax lépp wax yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yaxu alquran karim te yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñun ñëpp nag ñu julli démb ak ñu julli tey yëpp yal nañu yàlla boole ci fi mu yàlla fi yàlla waxee mooy qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla texe ñeel na ki nga xam ne da nga woor ba sa woor jeex nga sellal sa bakkan waxoo ci lu ñaaw defoo ci lu ñaaw doxoo ci la ñaaw doo génn muddum koor ñëw nga génnee sa muddum ngir gën a sellal sa koor yow texe ñeel na la te yàlla dogal nga tudd yàlla allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan waxtu julli jot imaam ñëw ànd ay naayibam yi ñoom ñëpp ñu ne allahu akbar ñoom yàlla boolee leen ci ñi nga xam ne dañoo war a texe ëllëg te ñu ngi ñaan yàlla loolu lañ ci yàlla boole ñooñu ñi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na imaam mu ngi koy wax toujours li saa imi farxataan mu ne jullit bu yàlla def wóoru koor fekk la yaa ngi wóor te dund amoo benn ngant soo wooree am nga ñaari mbëtt benn mbëtt bi su fekkee ne dem na ba six heures demi sept heures jot na kontaan bi ngay kontaan yaa ngi gis plat yi plat yi yaa ngi gis café yaa ngi gis meew yaa ngi gis euh, euh, tandarma sa xol day féex sax da ngay kontaan ci gis boobu rek balaa nga ci balaa nga dëkk soo déggee tamit kontaan bi nga ciy am mu ne benn kontaan te na benn mbëtt ñeel la yow mi nga xam ne yaay woor wante na kontaan bi nga bi gën a rëy mooy ëllëg yowmal qiyaamati fi yàlla waxoon ne as-sawmu lii wa ana ajzi bi bis boobu da ngay gën a kontaan ndax yàlla subhaanahu wa taala nee na koor man maa ko moom kenn du ma ko fayal man maa koy fay fayal borom kon nag bis boobu soo gënee taxaw ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala yaa ngi ànd ak sa koor bu sell yàlla bi la fay. mbégte boobu moo gën a rëy boole mbégte te yàlla ci yàlla boole dafa bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu nag bis bisu mbégte la bisu kontante la wante bisu jéggalante la bisu jëllalante la ndax soo bëggee yàlla jéggal la yow tamit na nga jikku wa jikku yàlla nga jéggalu nga jëllale loolu nag valable lañ ci ñun valable lañ ci mboolem doomu réew mi te nañu wasaare jàmm ndax wasaare jàmm mooy devise l'islam ndax baatu lislaam dañu koy xottee ci tur yàlla bu tudd salaam tudd yàlla bu tudd salaam boobu mooy yàlla mi am jàmm kon nag wut jàmm foofu yàlla jàmmal soo ne yàlla ma yàlla may jàmm yàlla ma yàlla may jàmm bul dem fu safaan am bul dem fu problème am ndax soo xaal ba doyee su fekkee daan war yàlla na ma yàlla suturaal yàlla na yàlla suturaal na nga sol lu jot mais nga sol lu nga ne yàlla may suturaal même su la yàlla suturaalee yow moom suturaaloo sa bopp kon nag soo ne yàlla Sénégal réewu jommal Sénégal réewu teranga la dañoo war a ñun tamit boobu boobu mandarga ñu gën a koo wéyal gën a koo dëgëral ci suñu doxalin ak suñu wax nañu wax jàmm nañu dox jàmm nañu def jàmm ndax si jàmm la bépp xëj kon yàlla subhaanahu wa taala loolu lañu sant ci biir loolu nag fa fi lu arxaamakum su fekkente ne jàmm ngay wut balaa nga doon xelal di ko def na nga ci say mbokk isaalu raxi bi mooy jokk mbokk ndax mbokk bii ko yàlla bind mu ne ko na wàcc ci suuf dafa doon jooy yàlla ne ko looy jooy mu ne su ma demee foofu xal ma ñu ma dañu may jokk mu ne déedéet an demal maa ngi ànd ak ku la jox ko ma jox ko ku la dog ma dog kon nag nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax ñu ñu baax baax yëpp balaa ñu nekk samba alaat nañu njëkkee ci suñu mbokk d'abord suñu njëkkee ci suñu mbokk ba pare après nag ñu jëm ci génn feneen ba jouro jiraanakum na ngeen siyaara seeni dëkkandoo euh, cité yu mel nii nag ñu rafet la lu baax la wante jokk mbokk bariwu ci ndax kenn ku ne soo bëggee da ngay tëj léeg-léeg sa dëkkandoo sax mën ngeen toog ñaari weer ñetti weer ñeenti weer doo ko nemmeeku bu leen nemmeeku doo xam lu xew ci këram doo xam lu xew sa kër ndax kenn ku da ngay muur sa morom mais su fekkente ne dëkk populaire yi loolu yomb na ndax ñëpp ñu ngi ci mbedd bi ñëpp ñu ngi ci tali bi ñëpp ñu ngi koy gis ñu ngi léegi nag loolu la ñu war a changé léegi-léegi nga fëgg sa buntu kër mbokk nga ne asalaamaaleykum gëj naa la gis. na yaa ngi ci jàmm naka njaboot gi ngeen saafuwante yow mii def yaay gën am ci yow parce que yaa gën a ubbi bunt bi ndax euh, am na benn barrière bu nekk diggante ay sopp li koy dindi mooy lammiñ lammiñ boobu nag asalaamualeykum ci la bokk nga koo ne asalaamualeykum won nga ko dal koo woon dal won koo woon ko jàmm koo woon jàmm moom tamit dala fa lay ñeme kon nag nañu ñemalante suñu biir imaam Ahmad maa ngi lay sant di la gërëm yow ak imaam Cheikh ak imaam Bari ndax ay école yu bari ñu ngi ñëw si man ñu ngeen jox ko mbokk ci gox bi ñu ngeen jox ci kër yi loolu c'est très important man sama bopp man sama bopp sax su ma mënoon chaque jour ma ànd ak yéen waaye nag soo ngeen demee rek incha allah fardu kifaaya la ngeen wutu ñun ñëpp yéen tamit loolu tamit c'est valable ñun ñëpp kenn ku ne na nga fexe nga ñëw ko sa dëkkandoo ndax sa dëkkandoo mooy sa mbokk. ndax su yuuxu jubee ci sa biir kër xaw bu guddi balaa sa mbokk di ñëw sa jëkkandoo ñooy jóg balaa ñuy jóg nag di la xettali ci fitna nañu ñëw ànd ak yow ci jàmm ak salaam loolu mooy jëkkandoo ju rafet te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ne yonent bi jiw bi alayhi salaatu salaam na ñëw si man di ma dénk naa sama àq dëkkandoo naa nammee ko sama dëkkandoo naa defar sama dëkkandoo mboolem xeetu teraanga ba ma xalaat ne dëkkandoo bi su deewee beneen dëkkandoo borom daf koy donn kon nag nañu góorgóorlu si baaxut loolu wa wasiwu ala iyaalikum na ngay na ngeen yaatal ci seen njaboot sa njaboot fexeel li la yàlla warsugal ñu bañ a xiif bañ a nar mboolem li ñu bëgg bitim kër gi na nga fexe loolu ñëw foofu mais nga contrôler loolu nag pour mu bañ a déraper loolu mooy yar sa njaboot ci biir l'islam kon nag na ngeen yaatal ci seen njaboot mais na nga leen di contrôler pour ñu bañ a ñu dem fi nga xam yàlla bëgg ko ndax yar ci biir kër gi d'abord kon nag na ngeen góorgóorlu ci loolu yàlla bu subhanahu wa taala muy wax ne fattaqullaha wa aslihu baata baynakum na ngeen ragal yàlla ngeen defar seen diggante man maay wax ni defar diggante mooy jaamu yàlla topp yàlla gëm yàlla topp yàlla ak jikko ji la foi l'adoration et le comportement yooyu mooy lislaam kenn du sens lislaam ñett rek la da ngay am ngëm yàlla da ngay jaamu yàlla te da ngay am jikko jikko bu rafet ndax jikko ji rafet moom la yàlla yónni yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna baa bu'ithtu li utammima makaarim al axlaaq kon yonent yàlla sallallahu alayhi wa jox na ci xadis bu gàtt mu ne sil man qataaka waatu man xaaramaka waafu am man su fekkee da ngaa bëgg def loolu képp ku la dogo yow bu dogo na nga jokkoo ak moom képp ku la na ko jox soo ko amee képp xam ne tooñ na la yow na ko baal nga jëm yàlla yow na nga fexe nga bañ a dugg ak kenn nga bañ a xam kenn nga bañ a aywa def li nga xam ne moom lañuy ñuy dem ba lay yaa ngi dem di baalu àq mooy nga am jiitu bu rafet nga nekk bu tabe nga nekk bu baax nga nekk bu am yërmaande ci si yëpp nag ci la yàlla war su soobu yàlla incha allah doo ko rëccu euh, li si des nag imaam Cheikh wax na ko mooy ci biir koor yi ak lu demee noonu ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal naan yàlla may fekkee déwén ak déwén yu bëree bëree bëri ñu ànd ak wér ak wér yàlla mi jàmm borom jàmm te ku ma jàmmal nga am jàmm yal nañu yàlla jàmmal jàmmal réew mi ak mboolem yoo ko wër-wër yal na yàlla may fekkee déwén ak déwén yu bëree bëree bëri commission bi ay may ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di leen ñaanal yàlla di sakku si yéen ñaan mboolem jëf bi ngeen def fii ci jàkka bi wala wax bi ngeen def wax ci jàkka ji wala seeni alal bi ngeen génne ci jàkka bi yàlla gis na ko yàlla na yàlla fay yàlla na ko yàlla ful yàlla na ko yàlla ful tey ak ëllëg boo mën a yàlla yàlla na ko yàlla bool defal bi jaay rasulullah salaa sallam wolof bi nag wolofu séeréer la ngeen baal ma ak lépp lu si dëng rek ngeen mottale ko seen xol ak seen xel ak seen xalaat ngeen baal ma ak kon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

المستقيم وعلى آله حق قدره اليوم الدار العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات